ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokki jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ci def ndigal yi ak bàyyi tere yi mbokki jullit yi sunu borom tabaraka wa taala dafa yónni ab yonentam ci diine joo xam ne diine ju mat la waaye diine ju matale la waaye diine ju leer la itam leeraay boo xam ne lëndam amu ca lu lëj amu ca mataay boo xam ne kenn mënu caa dolli dara waaye matale goo xam ne it dara faatu ko dara faatu ko yonentam boobee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom it li yàlla wàcce ci moom mu jottali ko ci anamu jot liin woo xam ne rafetaay ba dem na dayo waaye baaxaay ga dem na dayo waaye mataay ba it dem na dayo mu bokk nag ci li nga xam ne moom yonent boobu yi jàngal na ko aw xeetam mu di ne nit nit ci lépp loo xam ne lu aju ci àllaaxira la lépp lu aju ci àllaaxira mooy responsable boppam ay mbiram moom lañ koy laaj ëllëg ay jëf pas-pasam ay jëfam ay waxam ay jikkoom duñ ko laaj keneen moom rekk lañ koy laaj ëllëg borom bi tabaraka wa taala ma ngay wax ne yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum yéen nit ñi nee na ragal leen seen borom waxshaw yowman ragal leen bis buy ñëw boo xam ne laa yajzi walidun an waladi baay munta jox doomam lu toll ne tarfatul ayni bu bis boobu ñëwee wala mawludun huwa jaasin an walidihi shay'a doom jaat lu mu baax baax ak lu mu bari bari daraja munta jox baayam foofa lu toll ne tarfatul ayn mu teg ci ne inna wa'dallahi xaq lii dey dige bi yàlla la te yàlla lu mu dige dëgg la fala taxurrannakum alxayaatu dunia nee na dundug àdduna bu mu leen wor wala yaxurrannakum billahi alxaruur wattandiku leen iblis war leen kon seytaane moo fi ware ak àdduna ba tax nit ki mën a jaawale àdduna ak alaaxira bokk na ci yooyee nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale na ko gannaaw bu mu jàngalee ne kenn ku nekk responsable nga ci say wax ak say jëf ak say pas-pas jàngale na ne mbirum alaaxira ak mbirum àdduna bokkut ñu bari dañuy juum di qiyaas mbiri àdduna ci àllaaxira yaakaar ne ni nga moose fii ba mën a góorgóorlu di làqar ci ba am bénéfice bu ëllëgee mën ngaa làqar ci ba am tuyaaba foofa déedéet bokkul kenn du qiyaas àdduna ci àllaaxira ku la bëgg a jariñ fii ci àdduna mën na laa jariñ ci alalam wala ci darajaam wala ci moo xam nu mu lay jariñe su fekkee ne lu yàlla daganal la mën na la caa jariñ fii ci àdduna amma mbindeef moo xam ne lott na ci man laa jariñ fii ci àdduna ba noppi bëgg laa wax ne fële nu jëm ca àllaaxira mën na la faa jariñ te ngir mu jariñ la fa da ngay jël sa dund lépp jox ko ko di xëy ci ay service am di ci gont di ko jëfal bu ëllëgee mu fay la te nekk mbindeef ne yow moo xam ne dañoo yónni yonent bi ci moom mu war a jëf ngir bu ëllëgee ñu di ko fay mu wan la ne moom moo lay fay bu ëllëgee ma ne koo dégg mu di la wax loolu sooy boo nga daw te xam ne dafa bëgg a yàq sa àdduna ba noppi yàqaale sa àllaaxira mbokki jullit di sunu borom tabaraka wa taala lim nu jàngal ci alquran di nu wax ne kenn ku nekk responsable nga ci sa sa bopp kenn xamul lu mu toll laay yi ma doon jukkat lu ma tànn rek la waaye la fa nekk kenn xamul lu mu toll nee na fa man absara fa li nafsi nee na ku ne xifeet nangoo xool yeew yeew yeew ba kenn mënu koo nax nee na kooku boppam la ko defal nee na man amila saalihan fa li nafsihi loolu ñëw na yoon yu bare bari ci alquran ku jëf jëf ju baax nee na boppam la ko defal defalu ko ndeyam defalu ko baayam defalu ko doomam boppam la koy defal wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi nee na ku nangoo sant yàlla ci say pas-pas ci say jaamu yàlla ci say wax ci say def lu baax sa bopp nga koy defal nee na wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi koo xam ne nangu naa sellal bakkanam ba mu baax génne ci lépp loo xam ne xeeti bon bon la laabal ab xolam ba mu sell génne ci lépp loo xam ne xeeti bon bon la buy bon boni shirk bokkaale bon boni xalaat lu bon bon boni yéene doomu aadama yi lu bon bon boni kiñaan bon boni mbañeel yu teguwul ci dëgg nee na képp koo xam ne sellal na bakkanam akub xolam ba mu laab boppam la koy defal nee na wa man jaahada fa innama yujaahidu li nafsi képp koo xam ne yaa ngay jihaad fi sabilillah wala ngay jihaat ak sa bakkan nee na sa bopp nga koy defal nee na fa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi ku gindiku bàyyi fa yoon yu lëndëm ya jaar ci siraatul mustaqim wi nga xam ne jamono yu nekk noo ngi koy ñaan di wax ne ihdina siraatul mustaqim nee na ku def loolu sa bopp nga ko defal nee na wa man yabxal fa innama yabxalu an nafsi ku nay ba nangu woo def fi sabilillah nangu woo def lenn loo xam ne lu amal njëriñ doomu aadama yi la nangu woo def sax ci sa njaboot nee na loolu sa bopp rek nga koy def fa man nakasa fa innama yas yankusu an nafsi nee na ku fecc kóllëreem gim façon digganteem ak boroomam fas ko yéenee wéetal kóllëreem gim façon digganteem ak yonentam ne ko yow dong laa fas yéenee jële diine nee na képp ku firi kóllëre googi dellu gannaaw di bokkaale di indi ay biddaa di mooy ndigali yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na sa bopp rek nga koy def wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi nee na ku jëfe bàkkaar ak bàkkaar ba bu mën a doon nee na sa bopp rek nga koy def laay yooyu boo ko toppoon dafa bari lool lool lool di wane ne lu nit ki def boppam la ko def defu ko keneen lu tax boppam la ko def ëllëg fa la koy fekk ña koy bind ñu ngi dend ak moom lu mu wax ñu bind lu mu def ñu bind bis bu set bu xëyee ba keroog muy tëri bu yeewoo ñu tàmbaliwaat ba keroog muy nelaw kon bis a ngi ñëw ñu génn téere ba ne ku ko bëcc li nga doon wax ak di ko jëf kat mi ngi noonu nii su boobaa borom bi tabaraka wa taala tooñut kenn loolu moo tax laay yi bi mu jàllee yeneen laay yi ci sunu borom tabaraka wa taala teg mu jàkkaarloog moom ne ca wet ga mooy li nga jëf moom lañ lay fay di su la fay leneen ki jëf lu baax day am lu baax ki defub safaan it noona borom bi naan wattaqu yawman turjauna fihi ila allah ragal leen bis boo xam ne dañ leen di delloo yéen ñëpp ci yàlla maanaam da ngeen di wuy ji seen borom summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat bakkan bu nekk lam jëfoon ñu fay ko ko wahum la yuzlamun te nee na kenn du leen tooñ maanaam diisul jël bàkkaarub jàmbur bi la ko jox diisul jël sa tuyaaba it di ko jox kenn lu dul koo xam ne da nga koo yoreel tuyaaba ndax ki nga tooñ kat ki nga tooñ fii ci àdduna te jéggalu la ko ëllëg mën nañoo jël ay bàkkaaram di la jox mën nañu jël say tuyaaba itam di ko jox waaye loolu doonul ak tooñ kon borom bi tabaraka wa taala du tooñ kenn atte bu maandu rek lay atte borom bi nee na fa kayfa ida jamaanaahum li yawmin la rayba fii bis a ngi ñëw borom bi tabaraka wa taala dana dajale ñëpp bis boo xam ne sikki sàkk amu ci wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat bakkan bu nekk ñu fay ko lam doon jëf wahum la yuzlamun lu gën a bari borom bi tabaraka wa taala day daaneele laay yu mel nii wahum la yuzlamun muy kenn du leen tooñ kenn du tooñ kenn la nga jëfoon rek lañ lay fay doo ko fekk jëf yi keneen sa jëf ju baax it kenn du ko jël borom bi nee na yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min xayrin muxdara bés a ngi ñëw boo xam ne kenn ku nekk loo mas a jëf ci lu baax da nga ko fay fekk mu teew dara du manqué fa man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin charran yara ku jëf lu baax bu toll woon ne aw fépp boo dikkee da nga ko fay fekk ku def lu bon itam noona borom bi tabaraka wa taala teg ca ne wama kaana li nabiyin an yaxul wa man yaxlul yati bi ma xalla yowma alqiyaama borom bi tabaraka wa taala nee na bokk na ci yi ñu tere jihaad mooy li ñuy wax alxaluul mooy gañaayul jullit yi suñu gañee ba jële ci yéefar yi dara ci ay alal wala ay ngànnaay wala dara yoo xam ne dañ koo màng jële ko ci ñoom loola kenn sañu koo laal lu dul guerre ba dafa jeex yonent ba wala ka jiite woon jihaad ca séddale ko soldaar yi nekkoon ci gannaawam doomu tàndarma kenn sañu ko ci lekk ku ko ci lekk loolu xalool lañ koy tudde moo tax borom bi tabaraka wa taala dem bi mu koy tere daf ne ab yonent sañu te def loolu muy xalool mu ne képp ku ko def nag yowmal qiyaama da nga gis ak pay lu cay tegu mu ne summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat bakkan bu nekk dañ koy fay lam jëfe woon wahum la yuzlamun te it kenn du leen tooñ borom bi nee na qul afa gayra allahi abgi rabban wa huwa rabbu kulli shay yow yonent bi waxal ne ndax da ngeen a bëgg ma wut jeneen yàlla ju bokkul ak yàlla ji moom ñépp wala taksibu kullu nafsin illa alayha amut bakkan buy fàggu dara lu dul loola ci moom lay delsi kenn ku nekk la nga jëf dañ la koy fay borom bi waxaat na ne li yajzi allahu kulla nafsin ma kasabat inna allaha sariul xisaab nee na bakkan bu nekk lam jëfoon loola lañ koy fay te borom bi tabaraka wa taala day nee na calcul bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw lay calcul mooy dara réeru ko lépp la xam doonte dafa màndargaal loola ci yebal ay bindeef yoo xam ne moo leen bind ñuy bind loola sunu borom tabaraka wa taala su ko bëggee xam xamin wu gaaw la koy xam te du ko jaaree sax ci malaayika yooyu di bind waaye rek ngir ñu teg aw lay ci sa kanam ba nga xam ne ki doon bind téere baa ngi nii buñ ko jàngee ci sa kanam amut lenn loo ci mën a weddi su boobaa loolu moo waral bind koo gi ñu koy bind waaye sunu borom tabaraka wa taala la yaxfa alayhi shay dara munta nëbbu fi moom borom bi tabaraka wa taala nee na yowma tati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha bisa nga ñëw boo xam ne kenn ku nekk da ngay jiima défendre sa bopp waaye wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wahum la yuslamun lay résultat ba mooy benn bakkan bu nekk la nga jëfoon lañ lay fay maanaam jëmm ju nekk dañu lay fay la nga jëfoon te kenn du la tooñ borom bi waxaat ne wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat bakkan bu nekk danañ ko fay lim jëfoon wa huwa aalamu bi ma yafaluun moom borom bi tabaraka wa taala moo gën a xam jaamam yi li ñuy jëfee ndax ki xam li nekk ci sa xol nga koy xalaat kooku boo duggee ci néegu lëndamit loo def mi ngi koy xam kon su dee binduloo ay malaaka da leen di binduloo ngir bëgg a teg aw lay ci sa kanam yow waaye du dañ ko koy bindal moom ngir mu xam ko borom bi tabaraka wa taala tegaat ca ne al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm bisa ngi boo xam ne tey kenn ku nekk danañ la fay la nga jëfoon tey bis la boo xam ne tooñaange amut mu tegaat ca ne bi mu ne la zulma al yawm inna allaha sariu alxisaab borom bi tabaraka wa taala ku gaaw ab calcul la mu tegaat ca borom bi tabaraka wa taala ne wa xalaqa allahu samawati wal ard borom bi moo bind asamaan ak suuf bil xaq te dëgg rek moo tax mu bind ko mooy ñu jaamu ko ak lan wali tujza kullu nafsin bi ma kasabat ak bakkan bu nekk maanaam doomu aadama ju ne ñu fay ko lam jëfe woon wahum la yuzlamoon te kenn du leen tooñ waxaat ne kullu nafsin bi ma kasabat rahina bakkan bu nekk lam fàggu loola la fay fekk mbokki jullit yi laaye yi nga xam ne dafa bari lool lool lool ci alquran jullit yi di ko jàng di ko mokkal lu bari ci ñoom di ko romb xam lu muy firi kenn ku nekk war naa yëg ne laaye yii dafay joxe responsabilité boo xam ne kenn ku nekk danga koo am mu doon aw sas woo xam ne kenn du la ca fekk ëllëg résultat yi yaa koy gàddul sa bopp ndax yaa ko jëfoon leeraay bi dafa dem dayo waaye waxiin wi ci boppam dafa àgg ci xóotaay akub leeraay boo xam ne dafa dem dayo kon sag mucc ëllëg sag mucc ëllëg yow jaam bi sa projet la fii projet bi nga xam ne mooy sa projet bu mag fii ci àdduna mooy nooy def ba mucc ëllëg loola doo toog mukk naan li ëpp ci nit ñi dañoo yàqu société bi daa yàqu kon naa leen topp damaa gis mbooloo mépp ànd jëm ci nangam bàyyi rek ma jëm ci benn yoon déedéet loolu du doonu lay fa sa kanam borom mukk de gis naa ñu bari ñoo xam ne dañoo jàng xam-xam ba noppi dëng nañ kon xëy na yàlla duma ko jàppee déedéet loolu du lay fa sa kanam borom de sa yëfi bopp la yoo xam ne yow la ñuy laaj ñi nga xam ne ñooy samay jegeñaale dañ ma bàyyi kenn jàppalewu ma kenn dimbaliwu ma ñi ma waroon a defal lii defaluñ ma lii dama dugg ci sunna bokk yi seetaan ma loolu du lay fa sa kanam borom de sa yëfi bopp la yoo xam ne yow lañ koy laaj ëllëg ba àdduna ak li ci biiram àndoon di la seetaan moo xam da ngaa dugg ci lii wala da ngaa dugg ci leneen ëllëg duñu woo ñooña naan leen lu tax ngeen doon seetaan di waaye yow mii la ñuy laaj li nga def foo ko teg te loolu yi du doon aw lay noon ya dafa bari woon ñu not ma fenn fu nekk mënumaa am lu ma def bu ma xëyee nangam bu ma xëyee nangam waajur yi di ma ñaan yàlla ñii di ma génne ñii di ma def nag aw ma pexe ma far delluwaat ci la ma nekkoon du lay fa sa kanam borom de da lay wax ne suufu si yàlla si yaatu na foo mënta dunde sa diine jóge fa dem feneen loolu la la sa borom jàngal kon bokkum jullit ngir nga mucc jëfal jëf joo xam ne mooy jëfi ñuy mucc defal ndigali sa borom gannaaw boo ko jàngee ba xam ko bàyyil ay tereem gannaaw boo ko xamee jàngal sab yonent lim jàngale ci diine ji nga di ko jëfe lam jàngale woon nga teg ko fi suuf ak ku ko mën a yëkkati drapeau biddaa ku ko mën a yëkkati ci suuf ku ko mën a yëkkati ci kaw yow tëral ko ci suuf teg ca say tànk jàll te xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalewu ko ka ko yor nu mu mën a toll ak lu ñu bari bari ci àdduna bu àdduna bépp àndoon di dund biddaa ba mu des yow mu wóor la ne ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nga jàpp jàppal ca loola ëllëg bu ñu la laajee da nga amul lay waaye mbooloo ma dañoo jëm fële ma jëm fa dañoo waxe woon nii ma waxe noona ñu jëfe nii ma jëfe noona loolu du lay mukk fa kanam sunu borom tabaraka wa taala te lu jar fii ci àdduna ak li ci biiram lu jar jooyoo ak diine yàlla ji ak won ko gannaaw nekku fi nekku fi léeg-léeg nit ñi dañuy dem ba réer gi day jéggi dayoo léeg-léeg nit dana dem ba politique ak àdduna ak xëccoo koog lu ca aju dana tax nit ki fàtte lu jëm sax ci àllaaxira fàtte sax lu jëm ci diine fàtte sax ne responsabilité nga koy xaar ci bàmmeelam ak bu dekkee boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala rek a xam responsabilité boobu nu mu toll su ëllëgee ya nga doon werante yépp di toog ca grand place yi naan diwa mel nii diw mel nii diwa sàggan diwa baax nag yooyu yépp kenn du la ko laaj ca bàmmeel ba sa pas-pas sa jëf say wax lii lañ lay laaj diine yàlla ji foo ko tegoon yàlla ci boppam noo ko gëme woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ko toppe woon ñetti laaj yi moom lay laaj la ci sa bàmmeel ëllëg moo lay amal njariñ fa ngay jéggee siraat ca ngay tàbbee àjjana yàlla nu ko sunu borom tabaraka wa taala defal al imam ibnul qayim day wax ne day adduna nee na daa mel ne gént nee na daal dafa mel ne gént goo xam ne waa ji day jékki-jékki rek yeewu gaaw lool wala mu mel sax na genn ker goo xam ne da nga koo gis nes tuuti ker gi jékki-jékki nga xool rek gisatoo ko fekk jant bi yëkkati ko nag ker nekkatu fa adduna nee na bu la ree bu la bégloo tuuti dana la jooy loolu bari ndax li ci ëpp aw naqar la adduna nee na bu la bégloo benn bis wala sax ay fan nee na dana la jooyloo ay weer wala ay at kon noonu la bindoo allahuma atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana waqina adab annar ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ngeen tey nii nuy jullee xam ngeen ne am na yu manqué donte manqué googu nag li ko waral mooy ci semaine bii dafa am jaa yàlla bu fi jaar boo xam ne xam naa ne addunaam da ko gënal àllaaxiraam mu jël rajo bi fa nekkoon yóbbu ko sàcc ko yóbbaale it lam fekkoon ca kees ga bokk yi doon ko ca sànni mu yëlëb ko daal di koy yóbbaale te mel na ne bëccëg la ko def loolu moo waral rajo bii fi nekk nii capacité wax dëgg yàlla demewul noona yu ci bari manqué na loolu nag li ko waral mooy jàkka ji dafa war a am ab gardien boo xam ne koo xam ne moo koy garder dëkk fi maanaam féete fi booleeg di setal booleeg dëkk ci jàkka ji yore bunt yi di ko tëj ci waxtu tëj su fi nit dee julli mu xool ko su jullee ba noppi bu génnee mu tëjaat bunt yi loolu moom la jàkk mënta ñàkk dëgg la xale yi fi nekk ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax waaye dañoo nekk ci seen i liggéey nag di ñëw di fi julli si rek di góorgóorlu su tëj jotee ñu tëj waaye faw léeg-léeg faay mën a am ci lu mel noonu moo tax li am ci semaine bi am wax dëgg bi ñu fi nekkee léegi it nag lu mel noonu mi ngi fii door a am waaye daal ñu ngi soññu mbokk yëpp lu waay am ci problème yooyu ma tudd lu ko mën a régler moo xam ci xalaat lay doon wala ci jëf luñ ci mën rek ñu def ko maa ngi ciy wax ak ñi toog fii ci jataay bi waaye maa ngi ciy wax ak képp koo xam ne ku dégg suñ kàddu la itam daal ñu xam ne masjidu saxaaba fii ci almadi 2 daal am na ay soxla yu bëree bëri yoo xam ne yu ci bëree bëri day tege ci suñ bopp te léeg-léeg mu laaj ñeneen ñu ci jàpp barakallahu fiikum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qala innani mina membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membre am ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam